salaam mbokki safar 7 TV maa ngi bëgg a ñëw di ziar ñëpp di ñëw gën ci foofu ak tey mu gën a fas yéene journée tey tombé le samedi 29 juillet dañ ko commencé foofu sa Arabie Saoudite léegi lépp mën na Sadio Mané day dem Marseille ñëw ak club bi di Al Nassr foofu sa Arabie Saoudite ñettaatu contrat mu fay xaar muy ba 2026 transfert di Alla Seck dina fay Sadio Mané salaire bu toll si 41 millions d'euros at bu nekk kon nag kii di Sadio Mané suba la war a def visite médicale am ngir nakamatal la signature am ak club saoudien bi keneen kuy waaj a signé foofu sa Al Nassr mooy Yaya Kabyle défenseur Manchester United bi dina dem si fan yii di ñëw foofu sa Arabie Saoudite ngir nakamatal la signature am ba léegi ak Al Nassr défenseur Paris bii di Marc Diens moom moo nangu na négocier ak club bi di Al Nassr te fu mu toll nii nag mi ngi waxtaan ak ñoom waa Al Nassr yónnee nañu offre bu njëkk foofu sa Paris Saint-Germain ngir nakam na am seen défenseur bi officiel na fa bi ñëw signé na ak club bi di Al Ittihad jóge na Liverpool signé contrat ak l'Ittihad transfert bi ngi leen na dikkee 47 millions d'euros signé ba 2026 Arabie Saoudite la des ba léegi officiel na Riyad Mahrez jóge na Manchester City signé ak club bi di Al keneen ku signé foofu Arabie Saoudite mooy Jordan Anderson Jordan Anderson jóge na Liverpool signé ñetti contrat ak club bi di Al Ittifaq foofu Arabie Saoudite Al bi léegi ñu wayul waxtaan ak club bi di Paris saint pour seen milieu terrain bi di Marco Verratti Marco Verratti déggoon waaye jamono tali nag Al Hilal moo war waxtaan ak Paris Saint-Germain defoon nañu offre bu njëkk bu toll waaye Paris Saint-Germain nag dañoo xeeb offre boobu ngir nag bàyyi seen milieu terrain bi dem Marco Verratti déggoon ak Al contrat wu ñetti at Al Hilal ñu ngi ciblé mooy Napoli kon nag kii di Victor Osimhen bokk na si joueur yi nga xam ne nag Al-Hilal ñu ngi leen di xel waaye Victor Osimhen jamono ñu toll nag mi ngi say tànk contrat am ak club bi di euh, Napoli keneen ku waaj a prolongé ak Napoli mooy seen euh, euh, moom tamit mi ngi waxtaan ak Napoli te waxtaan yi jaar na dina prolongé contrat ba 2028 dina la salaire bu toll si 3 millions d'euros at bu nekk ak prolongation contrat boobu foofu sa Italie la des keneen ki waaj a signé foofu sa Milan muy doomu Amérique bi di yee Younouss Moussa am maa ñaar moom mu ngi waaj a ak Inter de Milan te Inter de Milan tamit uh, ñu ngi waxtaan ak Bayern Munich ngir naka motal accord bi nu mu gën a gaawee Juventus yu tane ñu toll nii ñoo gën a jege ngir naka signé kii di uh, Facundo Gonzalez bu Valence fu mu toll nii nag uh, accord ngi waaj am seen diggante accord léegi moom si diggante Paris Saint-Germain ak ngir naka ñu abale fa seen joueur bi di euh, Renato Sanchez kon Renato Sanchez dinañ ko fa abale ak option d'achat bu toll si 13 euh, millions d'euros ñuy fàttali Renato Sanchez FC Barcelone tamit euh, bëggoon nañ ko signé foofu sa France la ñuy kii di euh, Kylian Mbappé waa Paris Saint-Germain nañu fixé prix mu toll si deux cent cinquante kon loolu lañ si laaj ngir nag bàyyi ko dem Faisal Amari bi nga ne nag yaay Kylian Mbappé nekk tamit agent moom nag moo xamal waa Real Madrid ne Paris saint ñu laaj deux cent ngir nag bàyyi seen joueur bi dem waaye moom dina def lépp lu mën ngir nag wàññi xaalis boobu nga nag Paris saint ñu koy laaj ba léegi ak Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ñu toll nii nag waxtaan ak club bi di Paris Saint-Germain ñu ngi doon wax sax am am na seen diggante ñu ngi ko doon waxtaan yi dara sotteegul kon nag kii di Ousmane Dembélé jamono ñu toll nii nag clause mi ngi toll si 50 millions d'euros su weesoo le 31 juillet clause libératoire am moom ngir nag mën a mootal accord bi balaa le 31 juillet waaye nag ba léegi accord amagul seen beneen joueur bi nga xam ne Paris saint bëgg na ko ma yekki di yee Pedri Pedri Luis Enrique di entraîneur Paris saint bu bees moom nag moo ko bëggal la boppam ndax sañoon nag waa Paris Saint-Germain signé ko Pedri mi ngi am clause libératoire bu toll si jar ndax 110 millions d'euros Espagne lañ di yàlla ak club bi di FC Barcelone officiel la Alex Collado jóge na FC Barcelone signé ak club bi di Betis ba keneen ku signé foofu sa Real Betis jóge Barcelone mooy euh, Rafa Marin bi nga xam ne nag prolongé contrat am ak Real Madrid ba 2026 jóge Real dama signé club bi di Alavés waa ñoo fa abale waxtaan ba dégg am na si diggante Cavani ak Valence ginnaaw Valence dagg contrat am kon kii di Cavani mu ngi say tànk dem Manchester United ak club bi di Boca Juniors foofu sa championnat Argentine Valence fekkee nag Udinese na Cavani dem na kii di Rafa Mir bu Séville lañ ko bëgg a remplacer te Séville xaalis bi ñu si laaj moo bëri moo tax nag fu mu toll nii négociation yi taxaw Manchester United dàkk nañu offre 23 millions d'euros yi nga xam ne nag moom la West Ham defoon pour joueur bi di Harry Maguire waa Chelsea dañoo defoon offre toll si 93 millions d'euros ngir nag mën a am kii di Moïse Caicedo waaye nag Brighton dañoo dàkk offre 93 millions d'euros ñu ngi laaj 100 millions d'euros Chelsea ñu ngi waxtaan ak kii di euh, Mohamed Kudus ngir nag euh, am ak moom accord ba jot nañu am ak moom accord jamono ñu toll nag Chelsea ñi ñu ngi war a waxtaan ak Ajax ngir nag xool nañoo signé joueur bi te euh, ay waxtaan yu na si diggante ñaari club yi. daje mi ngi waaj am si diggante dirigeant Bayern ak dirigeant Tottenham pour kii di Harry Kane kon na waa Bayern pare nañ pour yokk seen loxo ngir nag mën a am attaquant Tottenham bi. waa Tottenham nag bëgg nañu profité si daje bi nga xam ne nag war nañ ko daje ak Bayern mi ni ngeen nag waxtaan si joueur bi di Mathys Tel ndax ñoom tamit bëgg nañoo signé joueur Bayern bi di Mathys Tel Luis Suarez bi mujjee dem signé ji foofu sa Inter Miami ndax nag négociation dañoo mujjee mujjee yàqu si diggante Inter Miami ak club bi di Grêmio di club Luis Suarez ñu jàll si euh, championnat turquie kii di Rebic dina jógee Milan AC dem na signé ak club bi di Beşiktaş kon nag lépp moo tax dina signé ji fi ak fan yi di ñëw foofu sa championnat turquie la ñuy def sa léegi kii di Önder dina jógee Olympique de Marseille dem na signé ak club bi di Fenerbahçe kon euh, waxtaan ba dégg am na si yële officiel Abdoulaye Ndour jóge na Sochaux dem signé ak club bi di Guingamp nekk deuxième division championnat France ñettaatu contrat la fa signé ki fi nekkoon gardien AS Pikine di Yàlla Landing Badji bi nga xam ne nag na AS Pikine di Aris Salim Masol jóge na Aris Salim Masol dem signé ak club bi di Um Salal nekk championnat Qatar kon fay nañ fa salaire bu am solo ak xaalisu transfert bu toll si un million waa Teungueth FC ñi nga xam leen seen joueur bi di Mohamed Sawane jóge na seen jóge na Teungueth FC dem ba club bi di ZFC nekk première division championnat Égypte ñeentaatu contrat la fa signé kii di Madické Kane bi nga xam ne nag jotoon na jaar si club yi si mel ni Olympique de Ngor AS Ouakam ak Jaraaf fii si Sénégal dina dem signé ak club bi di Ittihad bu Tanger nekk foofu sa championnat Maroc afro basket féminin mooy euh, coupe d'Afrique pour basket pour euh, jigéen ñi booram foofu sa Kigali muy Rwanda ci Sénégal mu ngi nekk ci poule C bi tey jii nii la war a jouer match am bu nekk war see jàkkaarloo ak euh, Uganda su 19 war a jotee suba si dimanche bi war na ak Maroc su 21 heures a jotee ñu jeexle ak championnat Sénégal programme Ligue 1 bi si yee 26e journée yi journée bu mujj bi jàmbaar dina dalal la Guédiawaye FC Teungueth FC dalal la Sonacos Linguère dina am Génération Foot Jaraaf mooy dalal la Stade de Mbour Casa Sport AS e Douane lay am AS Pikine am Cneps Excellence Dakar Sacré-Cœur am Gorée match yëpp 17 heures lay tàmbali foofu la ñuy yemale xibaar yi di leen jox dig daje beneen yoon suñu xibaar di leen yàlla